la ko waxee rek instant koñ bi am bii baa indil bii baa bii baa dafa war Aïcha bii baa nangam bii baa sàngam picc yi man lañu sabee yow rek yaa ma mën a jàppale bébé yow rek yaa ko mën ma sonn naa nit laa man baa duma dee. mais koñ bi ñoom la moo ci seen yoon ci sa relation yow ak ay Aïcha wala nangam defal nii defal naa pour lan loolu. parce que li ma def lañ gis. te Aïcha def gisuñu ko non Sénégalais la moo tax manduwul lan moo tax xamuñu aussi tamit ku tooñ. ki fay rek rek rek la ñuy mën a jox toor quoi ñoom li Aïcha def yëpp man ak moom fi ñu jaar yëpp mu fayee ma lii ñu tourné nga nekk ci sa jàmm changé euh, air dundu leneen nekk sa jàmm ñu bugg la ko xañ yow nga koy nangu aussi tamit. li def nit kese mais nit kese ba ci lan na les écoute pas dundal sa dund dundu bi benn la dund bi benn la dundal sa dund fixe-toi tes objectifs. nga concentré wu ci ñu jubal ci après nice. sama wax ji mooy nga def fula comme ça man ma ma ma libre en fait defal fula bébé defal fula en fait. gis nga wax mooy indi waaw pour fula ak fula kese loolu amul dara loo ciy tiit wala loo ciy xalaat ndax bokk na tey li ma fi indi tey li tax ma gën a def déplacement pour ñëw def ci farata la. loolu ci yow la dépendre yow boo bëggee tay tay tay wala suba suba suba ñu jàpp bis après nice. sérieusement. ngan di xew laa lay defal pour mën a noppiloo ñu ci biti. aywa kontaan la. lan la da nga parewul. yow bay yow ku la ne naa parewul. loolu ça dépend ci yow. bu la neexee tay tay tay nga programmer li ngay programmer. commander li ngay commander cat ba cat. catu koñ bopp koñ ba bopp koñ. ma baachal la ko. kon suba mën naa xëy dugg ko ñu commencé yëgle. yëgleel nii nii nii say WhatsApp ak yooyu yëpp commencé la taqal rajo yi man maa la ko sant. xew mu rëy laa bëgg xam nga man déjà man simple. loolu ne t'en fais même pas. xew bu rëy rëy rëy bu di coow. gis nga pour loolu dalalal sa xel boobu ne t'en fais pas gis nga pour nii nii nii nii weekend bi incha allahu rabbi dañuy dem Saly gën a concentré wu ci suñu bopp nga daw tuuti waxu nit ñeeg yenn détails yi. Saly laa lay yóbbu incha allah. Saly Portugal may dégg. waaw fa laa lay yóbbu weekend on passera la vie foofu allah. Aïssa yàlla xam na ni man doxaan yóbbuwuma doxaan yóbbuwuma foofu. waaw doxaan yóbbu la foofu yóbbu la foofu man loolu samay néew si. yàlla xam na ko dimaa génn jënd tàngal mu fekk ma mu wax ma ma may ko tàngal ma jënd tàngal bi mu jëlee tàngal bi kii la sax tàngal kii la poobaro bi. li ngay wax nii intéressé wu ma xam laa bëgg nga may ma sama baat tey du ma fanaan ci kër gi damay génn kër gi. yàlla na ma si yàlla mu sànni. yàlla na ma si yàlla musal si may la sa baat yàlla na na ma si yàlla musal yàlla na ma si yàlla musal su la ko naree may yàlla naa dee yàlla xalaatuma ko. yoroo di may sama baat wala doo may sama baat. pour lan foo ko teg foo teg may baat loolu mooy lan. doo may sama baat. xalaatuma ko. xam naa la eh, ma de. waay léegi eh, la la léegi la. Eh, bàyyi ma doo wër nag fu ne du doxaan. kan joxaat eh, eh, gis nga jabar da ngay bu ñu amee histoire dañuy xeex mu jeex. histoire ñu dégg ñu mu jeex. loolu mooy problème bi nga wuloo mu jeex waaye wuloo jox ma sama baat yi eh, yooyu noonu man sa baat mi. soo jugee di xuutali xuutali naka fiire may génn nga toog sama ginnaaw nekkati yaa gën a nekk kusu ñëpp. kan yow. yow lan laa def. yoroo yoroo sama bëte ma may. sama oh. bëte ma nag. yàlla xam ni nii nga buggee góor yàlla am na ko musuma ko xam. kan moo bañ góor kan moo bañ góor ay yow loolu nga may wax yow. lan moo ji góor rek na wuloo. ma ne loolu nga may wax yow nga takk ma fi ma war a takkee. jëlee ma sama kër baay ma ñëw fii dina sëyal dina muñal nga ne damaa bëgg góor da su ma bëggoon góor dinaa jógee sama kër baay ñëw fii sama kër baay am ceeb li fa manqué moo tax ñu muul ma ma yow si ba ñëw kon nga xamoo sama valeur nag man ma xam sama valeur yoro di ma may sama baat yow. yàlla na ma si xoolal lo baat boobu soo ko dugg naa ne. Eh, yoro pour sa butu bi gis yàlla pour sa butu sama nangu loolu. demal fii laay lal basan bi war na yàlla door romb kër gi. lalal kër gi doo ko génn tey. lal basan doo ko génn suba. doo si eh. génn wallaay dama lay ma rey sama bopp ñun ñaar ñëpp ñu dem armeer yow ñu sëy waat rey sa bopp rey say bopp waaw rey sa bopp rey say ñu sëy si àdduna rek sëy si àllaahi lalal basan bi lalal ginnaaw buntu bi damay dem. lan moo ñor fii danga ko màcc fii lu lu fi ñor. da ngay sexlante tàngal dama sexlante moom tàngal. kan Rose ngi noonu yaa ngi noonu man du ma bokk góor. eh Rose. daf ma woo ne ma. dañuy daje mu ne ma xanaa gisoo. loolu yëpp laajuma la. waaw léegi loolu mooy. loolu yëpp laajuma la expliqué ngay kii wax explique ay sar eh, bu topp sa kol bu topp sa kol kol fii raa ngeen ni décollé ko. loolu lan la. wa waaw man la nga expliqué yow xam nga ne amoon na ko problème bi ba man ma ñàkk di wax ak moom. doo fi génn doo fi génn. waaw oh, waaw doo fi valise bi raxas naa yére yi ba pare. lan xanaa loolu mu nekk doomu la rey la jaaleel. yoro kay jàppale sama bagage yi. man déggoo li ma la wa génn loo kër gi yow même booy dee doo génn kër gi. ah lu ma génn kër gi wallaay même boo deewee tam dañ lay suul ci kër gi loolu xamoo loolu xanaa yow doo génn kër gi yow danga nga bëgg man ma torok xanaa danga nga bëgg ma dee. deewal waaw loolu nag du am. génnoo fi. génn ma fi du bagage yi doo ko génne. du bagage yi doo ko jàpp. du ma dem wut taxi mu ko. ban taxi. taxi man bu dugg fii ma rey ndee am yow xanaa xamuloo ma yow xamuloo ma taxi voilà. waaw yow salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def moo ngi si biir moo tag bagage nee na taxi lay wëri pour jël bagage am dem mi ngi noonu. man bi xale bi ñëwee ni ma kaa wuyu ah, papa Yoro man gisoo sama mbubb mi sax mënu ma koo sol normal. man dama def dara yow ko man gu taxaw waxtaan mu romb ma ma taxaw waxtaan rek mu ñëw wax ma damay doxaan noonu rek doxaan noonu. loolu donc loolu kese mu jël bagage sam nii mu ne day dem et puis man kan lay doxaan. Aïssa. mu ngi si biir mu ngi biir Aïssa. Aïssa. eh eh kaay Aïssa yow la la la mooy problème bi jëlal bagage yi xa jël eh, bul jëlal. jël nga dugal ko ci biir nga ñëw toog fii yóbbu ko ci biir. wallaay bu la neexee sax suul ma. Ah, waaye nit nit nit nit nit doo doo doo doo topp sa xol hmm. ah hmm. ah toogal. damaa rusa woo baayam sabu baayam nit la jullit la moo tax mu rusa woo baayam kon ma woo baayam expliqué ko waaye yow yaa ko takkoon yaa ko ñaanoon. yow la ñu ko mayoon li bàyyam doon ci moom rek laa doon ci moom man mii bàyyi laa ci moom. jeex na tàkk comme ni ma doonee sa kilifa ni laa doonee kilifaam. waaw ay sax Aïssa lan mooy problème bi. kii fii la Kakito ñëw fii yaa ngi dee mm-hmm. lu ma waxul da ko fàtte taman fàtte naa Kakito kii moom yoon la moom xaw ma tug sa mboobu xaw ma ma gis ko mu ànd ak Rose. wallaay cukusu mako eh, eh, eh, yoro billaay cukusu mako yàlla xam na ni cukusu mako musuma ko cukusu kan laa ko cukusu xoolal yoro kañ ko cukusu yoro yoro bu yàgg laa ko cukusu woon waaw loolu lépp dëgg la yow bu yàgg laa ko cukusu woon depuis ma am ko cukusuwuma kenn ku dul moom laay cukusu waaw léegi moom ngay cukusu dégg naa la xam nga lu ma bëgg wóoruma eh eh xoolal bu leen sorko sorko wax ji waaw da ngeen ma fee woo kat pour ma defar ma ne defar nag dama koy teg ci ay sat dama koy may moom mu wax bu daanelee nga wax ndax benn lay pàkk leen naa ñëpp lay déglu nag waaw pàkkal waaw kay. pàkkal àggalil yow. dama ne waaw yoro mii duñ ñàkk am confiance ci man ba pare di wëlbati ko di def lu ko neex loolu ma ko nangu. Mhm. du ma toog fii du ko muñal joxuma lekk joxuma naan maa ngi koy muñal mhm. léegi pourquoi moom muy génn di xooli Rose li ma ko mën a muñal Rose mën na ko ko muñal ah dañu waxante dëgg. loo ma gis si Rose. taxaw si mbedd de mu fekk ma ko ah moo taxaw si mbedd mu eh, fekk ma eh, xool ma taxaw waaw ku ñoom Rose la dem. ñu tegal ko attaaya di jaaga jaagali di ko ko jox. ba tamit. eh ki ma ko wax dafay am lu leer nañ tam mboqam moo ma ko wax. sama ban mbokk mboqam bi ko sës rek moo ma ko wax. ak maa bari mbokk yu mun fenn ak maa bari mbokk yu mun fenn. loo def lañ wax. rawatina comme que yow wax nga dégg naa la. waaw ko moom mu wax. voilà waaw yow nan la demee. xam nga lan la demee. waaw. Ah, Diouf. nii mu demee nii mu demee. Mm-hmm. thank you